maintenant par rapport à au premier thème du débat déglu nañ ñëpp te dañuy saluer comportement yeeg taxawaay moom dans sa ci li mu génne da ngay ci li mu wax da ngay gis ni y a problème de compréhension de la population sénégalaise kon mm-hmm. doit expliquer beaucoup de choses par rapport à la question foncière parce que ñu ci bari dañu yàgg si dëkk nañ ci lu yàgg ñoo ko moom wala mm-hmm. bay nañ ci lu yàgg ñoo ko moom te moomuñu ko donc loolu dafay laaj euh, waxtaan day laaj explication mais pour explication am il faut concertation am. Mm-hmm. mais pour explication am pour concertation am il faut impliquer tout le monde faire dans la démarche inclusive impliquer tous les acteurs parce que koo ci beddi rek di nga soxla doo ko am. Mm-hmm. koo ci beddi moo waral nga ne dafa am délégation yu ñuy recevoir suñu génnee nit ñi génn génnewuñu leen yónniwuñu leen mm-hmm. donc. loolu mooy démarche inclusive par rapport à des question foncières parce que coow li yàgg na fi am ci Sénégal parce que président de la République Macky sax mi ngi koy mi ngi ko daan wax ci benn discours am que suuf mën na andi problème mën na nekk source de problème dans un pays. oui mais président sax en 2012 bi muy campagne leen dinaa leen delloo seen suufu maam. Mm-hmm. xam nga xam nga xam nga delloo seen suufu maam day fax day fekk ñu jox leen këyit. waaw buy wane ni ñoo ko moom parce que. Ngor c'est pas Touba boo xamante ni dafa am titre foncier Cheikh Ahmadou Bamba que ñooñu Touba titre foncier la bokkul ak sama kër bi nga xam ni titre foncier la maa ko moom est-ce que yaa ngi comprendre maintenant aujourd'hui situation am na am na début de solution bi ci nekk mais li ma ci ragal mooy ba ñu dellusee dañoo war a def ce qu'on appelle le parce que question d'insécurité am na déjà parce que émeute am na ba am mhm. mort doom ak leneen mhm. su ñuy toogee di delloo siwaat les informations yu jóge les solutions yu jóge ci président dañuy impliquer tout le monde mm-hmm. impliquer tous les acteurs mm-hmm. pour permettre kenn ne boolew ñu ma ci mu génn créer groupuscule ne d'accord ma ci amande sax bu ñu la yónnee boo bala ngaa jël décision da ngay ñëwaat ci ñi la yónnee. Mm-hmm. Hmm? ñoom jëluñu yónni woon ngeen ñoom jëluñu décision de ñoom jëluñu décision de dañ leen di proposer c'est-à-dire dañu ñëw ne dañu soxla dañu ñëw ne lii moo xew président ne leen puisque dafa am problème ñii dañ naan lii si laaj la ñuy war a def ñii ne euh, gendarmerie bi dafa dafa inon inondé fi mu nekk dañ fa te on a besoin dans le cadre de de de de de la gendarmerie de proximité de la vision de la des commissariats de proximité soxla nañ brigade de gendarmerie. waaw le président a coupé la la la la poire en deux. ba pare leen dinaa leen tabaxal lycée boo xamante ne sur fonds propres mun ngeen am lycée mun ngeen am gendarmerie ba pare jël leen stade municipal bi ñu jël maintenant il faut retourner. vers la base parce que su même suñ leen yónniwul y a une association de jeune boo xamante ni ñu ngi taxaw di xeex boole leen dans la discussion boole leen dans la concertation soo leen boolewul ci concertation li nga soxla pour trouver solution doo ko am